boo faloo da ngay jël avion bi réew mi Sangomar jaay ko loolu nga wax ah. Mhm. nga wax. absolument ok d'abord xam naa danga nga juum sax Sarène la au lieu de Sangomar ah roplaan bi ah wuyu ma. voilà euh, lu tax nga am xalaatu jaay avion bi. Euh. pour jël xaalis bi nga ci war a def. def ko ci njàng mi def ko ci santé bi. encore une fois. Pape Ngagne ay nit boo leen yërëmul. mënoo leen a dimbali. et Sénégal dafa soxla njiit bu ko yërëm. suñu peuple dañu soxla njiit bu leen di bàyyi xel. le problème c'est pas de jël avion jaay ko ou quelque chose comme ça parce que avion outil de travail la bu ay nit. jël yow xam nga ni outil de travail la ma ne ma ne outil de travail la. xam nga ni du luxe. may may ma ma ñëw rek outil de travail la bu ay nit jël féetewoo ko. te yemuloo foofu da nga ne li ñu am ci ci euh, oto itam di nga jël quatre-vingt cent yi nga jaay ko. alors xam nga Pape Ngagne euh, je crois que bu ñuy dégloonte. Mhm. parce que ñi ñuy déglu aussi dañu bëgg ñu jox leen explication yu leer. Mhm. cest que bu ñu nee bëreet. Mhm. nga roof leneen. mën nañ leen a jaxase. ba lépp ci njaay mi la rek. non encore une fois. Euh, dama bëgg nga comprendre ne. balaa ñi ñu jiite. di nekk ci luxe. il faut ñi nga xam ne ñoo leen fal c'est pour kii ñoom ñuy xeex. avion du luxe aussi may ma ma ñëw rek. Euh, avion luxe la ci réew moo xam ne tey indice de développement humain bu Sénégal on est à la quarante septième place sur cinquante trois pays en Afrique luxe la tey Tivaouane Peulh am na quartier yoo xam ne amuñu ndox amuñu courant. tey Kër Massar. Bougane yow da nga bëgg a delloo réew mi ginnaaw. may ma ma ñëw waaw parce li may wax xamuloo ko ci réew mi. yow lan ngay wax nii man avion bi laa bëgg ñu taxaw ci bala nga may wax leneen. li may wax xamuloo ko. avion bi nga bëgg a jaay xam nga xam nga li may wax. xamuloo ko te yow nga xam ni outil de travail avion yow la mën a yitteel. parce que yow yaa xam luy avion mais ki nga xam ne day day dem di root teen yenuy goj di xëcci goj di yenu ay paan kooku avion yitteelu ko ki nga xam ne ci quartier Bawol gii. ci kër Massar pour mu jugee dem ci tali bi day yéeg ci saret kooku avion yitteelu ko ki nga xam ne tey ci biir dakaar gi bu 19h jotee ci quartier Tawfeex Yaakaar day dem nelaw parce que quartier am dafa lëndëm kooku avion yitteelu ko dama ne li ma gëm man mooy nit ñi ci seen bopp il faut ñu abréger seeni souffrance Serigne Cheikh Al Maktoum da doon wax ne la démocratie ce n'est d'aller aux urnes c'est de permettre au Sénégalais de vivre dans la dignité. mais Bougane balaa dama déglu ma rek euh, Pape Ngagne. su ma balaa nit ñuy faram fàcce balaa nit parce que su fekkente ni da nga may da nga may wax loolu. waaw mais moi je pense que. waaw balaa nit di di balaa njiit di yore avion <laughs> balaa njiit di dawal oto buy jar cent vingt millions day fekk ñi nga xam ne ñoom ñoo la jiital ñu am yaakaar ci yow est-ce que Pape ngañ xam nga ne. Euh, oto benn ministre sénégalais mën na jënd est-ce que xam nga ni gouvernement Sénégal 76 francs lay dépensé ci sénégalais bu nekk ci wàllu wér-yaramam weer bu nekk boo ko teg at 12 francs la maanaam paquetu différent alors que ministre bi yor wàllu wér-gi-yaramam parc automobile am romb na 500 millions genn wàllu milliard man dama ne askan wi nañ leen yërëm loolu ngay wax noonu avion boobu def la problème parce parc automobile boobu def la problème pour man askan wi ñu ëpp loolu non c'est-à-dire nanguwuma man non man xam nga fan laay waxee man fi may waxee mooy bu fekkente ni da nga ni da ngay jaay avion bi war a dem ci vol régulier yi yow sa gouvernement say voyage mais yaakaar loo ni loolu moo gën a moo gën a bëri xaalis que avion bi personnellement dafay fekk nga jël dafay fekk nga jël voyage def ko def ko mu nekk activité day fekk rek nga jël voyage def ko mu nekk activité xam nga bu fekkee ne euh, da nga bëgg nekk maanaam maanaam euh, nu ngi koy waxeeti mais xam nga réew mi ngay mi nga ba mi Sénégal est réew mi nga xam ni ci ci ci nekk jegewul sax développement justement kon kay répondre nga sama question yow koy kon yow répondre nga sama question. mais réew moom yaakaar nga ni mën nga des ci biir réew mi doo tukki doo dem. doo doo link ay relation waxuma la loolu doo def diplomatie doo def dara doo dem doo ñëw. waxuma la loolu waxuma la loolu bu ma wax loolu ma waxul waxuma loolu je n'ai jamais dit ça Pape Ngagne dama ne tu l'as bien dit réew mu nekk ci sous-développement waruta nekk ci yenn luxe yi. ñi ko jiitu bi mooy avion. buga euh, non mais non euh, mais euh, xam nga pour man honnêtement gis nga ñi ñuy seetaan mën nañ ñu xeeb. parce que tey ñi nga xam ne ñoo dëkk ca village bi ñuy wax Ndong nekk ci Daaru Xudos un village qui a deux ans village boobu boo fay dem amul yoon amul courant amul ndox tey bu ñu taalee seen télé batterie di ñu seetaan nga nekk fii di wax waxu avion ñooñu dinañ ni mii kii ban réew la nekk. parce que man mënuma comprendre loolu dama la bëgg wax ne fi ma dem ci Sénégal ak li ma gis ci Sénégal. tax na yërmande ju ma amoon ci doomu aadama mu gën a yokk tax na lu ma doon def lu nekk lu ma doon def benn danaa ko dolli ñaar fukk parce que nit ñi nekk nañu ci ay situation yoo xam ne yéene woo ko yow sa doom te man yéenewuma ko sama mbokk donc pour man wax ji du avion yamuma ci avion dama ne ba ci injustice sociale bi am ci salaire ñuy liggéey dama ne nañ ko régler fonctionnaire fonctionnaire fonctionnaire 80 pour cent oto yi nekk biir présidence de la République bien sûr pourquoi ab njiit buy génn cinquante oto wër ko pour la pour pourquoi faire njiit boobu di génn fii Sénégal 50 oto wër ko bu demee France Angleterre wala nangam nangam day romb kenn du xam ne moom mooy romb kenn du xam ne mooy romb moo tax bu ma gisee yenn saa yi tubaab yi li nga wax ni jiitu tubaab yi ñëw li nga wax ni bu nañu bañ ñu xeeb ñu yaakaaruloo ci sa xalaat bi nga am ci jaay avion bi ñu xeeb la ci ci xalaat xam nga lu tax du duñ ma xeeb parce que damay liggéey pour Sénégal ci situation bi mu nekk ñu génn ci dem ci beneen situation gis nga Pape Ngagne euh, képp sëñ Tuubaa dafa wax ne képp ku lay xañub xam-xam ku réer la te ku lay réeral ci ci yërmande gi mu yegg ba ci na fa firru minhu mu ne boo ko séenee dawal gis nga malheureusement ñi ñu jiite dañoo fexe nëxas suñu xel yi nëkk ñu ci benn situation boo xam ne ñun dañ ci maanaam situation wu gént rek lañu nekk pam ngañ dama bëgg liggéey ba Sénégal dootoo fi déggati loolu ñuy wax consultation médicale gratuite dama bëgg liggéey Sénégal ba dootoo déggati mbootaayu jigéen yu taxaw naan nu jox ñu financement ba ñu leen koy naxee parce que ñi fi ne la liggéey loolu lañ ci jublu xam nga réew mu mel ni Allemagne au lendemain de la deuxième guerre mondiale dañ ko yàq ba mu yàq yàqu yaxet waa Allemagne dañoo toog ne waaw léegi ñun lan la ñu war a def. Hmm. est-ce que dañoo war a yenn suñuy loxo di jooy. wala est-ce que ñun dañu war a liggéey. d'accord ba génne Allemagne ci situation bi mu nekk. d'accord bi ñu liggéeyee. Hmm. ñu génne Allemagne ci situation bi mu nekk créer ay milliardaires yu bari. Mhm. mais ni milliardaires yi amee noonu la pauvreté bi bare. ñu def taxaw seetlu ñu toogaat ñu ne ah jaadu na kat ñu defaat une distribution redistribution des richesses. ba tey fi mu nekk nii indice de développement humain bu Allemagne mais moo gën a kawe ca ca Europe. Mhm. et loolu mais ndamu kenn ku nekk ca ña nekk foofu la. Mhm. liggéey boobu Pape Ngagne dafa am solo. tey fexe ba doomu Sénégal bi. la muy yóotu mu mën cee jot ki amul faju mën a faju ki am bëgg yoon am yoon mhm. ki amul courant bayti njaay bayti njaay mhm. dëkk bii di bayti njaay dañ leen sampal ay lamp cour ay lamp dañ leen sampal ay poto mhm. juróomi at a ngi nii bi ñu leen sampalee ay poto ne leen dañ leen di indil courant ba fi may wax ak yow nii au vingt et unième siècle au vingt et unième siècle okay. c'est un village qui est à moins de cent cinquante kilomètres de la présidence de la République d'accord dama ne